Je veux dire à tous les Sénégalais. Même, même. Euh, vous, vos enfants sont à l'école aujourd'hui. Moi, mon Sur quelle base À tous les Sénégalais, souvent, qui disent Oui, de son groupe ne vont pas à, à une manifestation. Hier, des policiers ont photographié ici mes fils. Google Côté TikTok pour dire que les fils de, de son groupe ne vont pas. Ça, c'est pas l'ordre de la police. On ma famille. Et c'est pas méchant, parce que même ma famille, elle a fait le choix comme moi. Je dis à les Sénégalais, ce que mes, ma, ma famille vit, amul benn famille bu koy vivre. ñu ngi leen di saaga ñu ngi leen di góor ñu ngi leen di tere dem euh, jàngi. Mon épouse a eu du mal à sortir ce matin pour aller au travail. loolu quand les gens parlent de sacrifice il y a pas de famille qui subit plus de sacrifices au Sénégal que la famille de Ousmane Sonko. Et aujourd'hui vous tous seen i doom ñi nga école di jàng Macky Sall doomam lekk na xaalis réew mi ba tool ni mu toll mi ngi wër di dox soxlaam mais vous on vous dit le fils de Sonko ne doit pas aller à l'école donc fan ngeen ko def donc euh, vous avez vu par vous-même